kon donc convoi ba léegi mi ngi biir parcelle ñu ngi def le tour ah certainement on se dirige vers Akapes nga xamte ne mooy point de chute bi ah fële terrain Akapes sama gars yi sama mbokk cadreur yi gars yi bëree naa waa ASID TV sama mbokk cadreur yi ah reporter pa c'est pas facile ñu ngi si terrain bi depuis ce matin nekk ci convoi bi Ah, malgré les conditions difficiles, ils gèrent la presse, les reporters. Nous avons fait des choses solo. Nous avons fait des choses malgré la ah, campagne. Ce n'est pas évident Mais nous avons fait des choses très bien. Nous avons fait des choses très bien. Nous avons fait des choses très bien. Nous avons fait des choses très bien. dari saat pakai misalnya aja masih ada jelas saat misalnya pakai misalnya masih ada jelas donc convoi bi départ na convoi yéen seen camion yi ñu ngi wéy di dem convoi baa ngi noonu convoi baa ngi noonu di jàll yéen ngi seen leader yaa ngi noonu Liberi, Vamos lá, liberi, Vamos lá! Organização ali! Gangue, Nono! Yenoa, coalition de le président! Carré de Ré, Rakbaram, Yaramoulé!

ay a ah, ah, ñu ngi signalé incident ci ginnaaw cortège yi waaye li ñuy vérifier la xool a ah, am na ñuy coow fee. ñoom ñan la. ñoom ñoo yëg ci kaw terrain bi di ay booy Sonko. xam nga lool du yoon. ñun xeex taxul ñu jóg ñun focus rek ñu ngi focus ci Sonko. Sonko rek Sonko rek la ñuy topp. Sonko rek la ñuy topp. mooy suñu wot mooy suñu wot man maa ngi nii gis nga unité 7 parcelle dama ko fàtte fii lañ ma dooree gaz bi gis nga du gis nga dañ ma door gaz sama bët yaa ngi nii maa ngi nii gis nga pétrole kii baa ngi nii vinaigre baa ngi nii dañ ko fàtte fas yéene sibile avant midi dañoo bëgg a xadd avant midi ñu sibile parce que jomaay mooy sonko te sonko mooy jomaay te ñëpp xam nañ ne waa coalition jomaay président dañuy gagné élection yi ña nga xam ne ñoom kon ñoo ngi ñaan ñëpp ñun wallaay Sonko lan ñu bëgg ñun bëgguñu kenn ku dul Sonko ba te réew Sonko moo koy jël. kon donc mu doon incident bi ñu doon signalé ah, pratiquement dégg ngeen témoignage yi ñi nga xam ne dañ leen jot a attaqué muy quelques par Ousmane Sonko le candidat leader. de l'opposition. Ah, nous voulons que Thomas Faye gagne dès le premier tour sur les élections présidentielles de 2024. Le 24 mars, nous voulons que Thomas Faye gagne. Et nous sommes là pour accompagner la, caravane de la victoire, de démontrer notre force ici au Sénégal. Le peuple verra que Thomas est le président illégal. Et nous souhaitons gagner dès le premier tour, Inch'Allah. Donc, euh, la caravane de la victoire, moi et Kadoum. dañuy gagné élection yi premier tour ah ngeen gaañ ci oto yi ba léegi ah. xëddu wote ndogu jibile mu jeex tàkk amul leneen. jomaay rek jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay barke Serigne Touba. xëddu wote ndogu jibile ndogu jibile jeex na. Sénégal jëm waaw. Ah, beaucoup d'internautes, pratiquement sans que manquer c'est pas évident campagne électorale caravane on est en mouvement en constance en mouvement image a pour à l'instant pour mon ah, les meilleures images c'est un peu compliqué image de bouger mais ah, rassurez-vous on fera le maximum pour li nga

Ah, donc ñu ngi fii parcelle seen maire bi ah. eh Sonko moom moom dëkk bi eh lan la. eh jox leen ko lu mu moom ku fi def leneen lu weesu Sonko lu mu fi def barki borom daaro ñu dal sa kaw. eh nan ko jox dëkk bi eh Sonko rek Sonko rek la ñuy topp eh c'est ça le problème. yéen a ngi dégg Sonko rek la ñuy topp ah. am na saxaar tuuti saxaaru way suñu ginnaaw noonu